salaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaara bu baax a baax ñu ñëwatee yéen ci seen revue de presse bi di ko defal bis bu nekk fii ci Info ak seen xarit Ousmane Ndiaye te yemook mercredi 18 décembre 2019 ñu daal di koy commencé ji fële ca Barcelone ak journal catalan bi di Mundo Deportivo mu ngay xam le ni la xew fële ca Barcelone daal gën naa sax ab classico war dox ci diggante Barcelone ak Real Madrid classico bi xam daal dàqoon nañ ko ñaari ginnaaw ci ñaari weer ci ginnaaw lañ ko waroon a football waaye dañ ko dàqoon tey jii nag lañ koy mujjee football ñu ne Liga ba tey jii la xam kan moom moo koy rek jiite ginnaaw bu Real Madrid ak Barcelone tolloo a mën a ci classement boobu ku gagné mooy nekk première mu ne nag ba baneen deel bi ci amaat nag mooy diggante Lionel Messi ak Karim Benzema ñoom ñaar ñi xam jamono ji ñooy meilleur buteur ba foofa ca championnat ba ku nekk ci ñoom ñaar rek dugal nga douze bi ñi ne ñoom ñaari tey ji daal ak rawante mën naa daal di am ci boobu boobule match journal bi di Mundo Deportivo ma ngay xam le ne match bi nag la tax du match kese eh, wala loolu moo di manifestation yi nga xam daal ñoo ko fay néggandiko tey ji ñi nga ñoo di Estoumanie démocratique dañoo daal di woote ay manifestation ci li wër ci stade boobu di Camp pour rek wane seen bopp te la ñu bëgg mooy am indépendance foofu ca région catalane ñu ne nag mobilisation bu takku ci wàllu sécurité ñii di waa Barcelone daal di nañ ko def ndaxte kat lu tollook ñetti junni ci ay agent sécurité daal di nañ leen mobiliser rek ak ay blindés yoo xam ne si daal moom bari nañu lool ñu daal di fas yéene wër lii di stade ba rek pour gantal manifestation yooyu nga xam ne daal moom lañ fa daal di bëgg a def loolu journal boobu di Mundo Deportivo daal di na koy xëy fësal ñi di wax ci journal katanool bobu di sport moom daal dina ñew ci match bi nga dal mom lañu xarté ji ci mercredi ji bu 20 h jotee ci diggante barcelone lay doon ak real madrid mu né nak ñu ngi xaar barcelone gagné football daal di ci gagné té kat match bobu barcelone la mu ci bëgg rek daal di profiter daal di ci profitu fofu ci camp nou daal di gagné koku di real madrid rek pour daal di mëna téggu ci yoonu jupp amal saison bu ci ayep mu né objectif bi nga dal mom lañu am ñom wa barcelone ak wa real madrid ak entraîneur ak joueur ak supporter yëpp ñu daal def marche boo xam si daal dina am ci jàmm ak salaam mu ne la war loolu nag ay mobilisation yu takk yoo xam si daal tey jii ñoo ngi koy néggandiku foofa ca Barcelone te ñaamal loolu di ñuy demander seen indépendance ñu ne loolu daal moo tiital ñu bare bare bare bare waaye mu ne ñëpp daal dañu àndandoo rek di sàkku rek mars ba daal di am te daal di am ci jàmm loolu journal boobu di sport yi daal di na koy xëy fësal tey jii ñu dem fële ca Madrid journal bi di Marca ma nga ñëw ca match bi ñu tey jii ca Camp Nou a dox ci diggante Barcelone ak Real Madrid aji woon ca journée Liga yi mu ne nag benn match football rek la dee waaye nag nañu jàpp ne mooy meilleur match du monde moom la nar a football foofa ca Camp Nou war a dox ci diggante Barcelone ak Real Madrid ñoom ñaar ñi ñoo jiitu ca classement ba foofa ca championnat bu Espagne ndax ci ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne am nga lu mu ne tey jii nag na leen daal di xaajale loolu journal boobu koy xëy fësal mu ne nag kooku di Zinedine Zidane entraîneur wu Real Madrid bi nag moom min na lool foofa ca Camp Nou ndaxte kat demagu fa ba kenn daal di ko fay gagné moom Zinedine Zidane ba mu nekk entraîneur ak léegi daal ñeenti match yi daal jot na kaa football foofa ca Camp ñaari victoire la ca jële ak ñaari match nil ba léegi daal dégg gu fa muñal moom Zinedine Zidane ñi ne nag bi mooy juróomeelu yoonam euh, ci banc Real Madrid mi nekk entraîneur kooku di Zinedine Zidane daal ku mane la foofa ca Camp Nou ñu dari des foofu ci Madrid ak journal bi di Marca mo ma nga xey ci classico ba momi dari ne classico bi de match football kese la waye nak match football bo xam dal daal nañu nañoo di jox banex Real Madrid Barcelone tay lay am fofu ci Camp Nou mu ne ñaari équipe yoyu tolo point champion ba Lionel Messi Benzema daal di tolloo ca classement meilleur buteur yi ku ne ko duggal eh, deux bi mu ne loolu lépp daal eh, tey ji mën nañu daal di rek séparé wu loolu journal bobu di as daal dina koy ma ngay xamlé ne Zinedine Zidane nak tay ji dal ma nga fasiyene football football 4-4-2 retour kooku di Casemiro ak kooku di Ferland Mendy mu ne manees na ko daal di séntu ci onze départ kooku di Zinedine Zidane loolu journal boobu di as daal dina koy xamle journal bi di as moom ma ngay xamle rek ne Real Madrid nag moom de ñu xoolee juróom benn match yi nga daal moom la jóge ci digganteem ak kooku di Barcelone gañëw ci benn match bi nekk nekk juróom ñaareelu match bi nga xam eh, di Real Madrid nag dina jàpp ab record bu Real Madrid daje nag Barcelone juróom ñaari match yoo xam ne si daal mënu ko cee gagné benn yoon ñu ne nag Real Madrid jamono ji mi ngi ci juróom benn jëm juróom ñaareel ba ndax rek ok euh, nga xam daal moom la amoon record boobu nag Real Madrid dina ca dellooti wala du ca dellooti ñu ne tey ji daal lépp dina leer ci diggante Real Madrid moom waxtaan wa mu seqe a amal ci mercredi ji a kooku di Real Madrid mu ngay xam le daal moom classico bi nga xam daal jëkk na ko rate metti woon na ko lool ndax bu sañoon daal da koy góolu ndax da la mu bëgg mooy chaque match mooy nekk ci camp di ko jàpp moom tertes gën di xam ne daal Real Madrid gi nga xam daal moom la am tey ji ci mercredi équipe bu dangereux la ndaxte kat ñoo a ni ñu amee ay jafe bi ci bi nag nee na match bu yomb nag moo ci mënatul am match yu jafe lool ñoo fi am ndaxte kat au plan physique moom équipe bu bari dañoo daal taxaw lool kon nag match bu facile moom mënatul am ci liga bi avenir amit ci wàllu football mu ne daal xamul lay ñëw suba waaye daal jamono ji ci équipe boo xam daal kontaan na fa lool te bëgg na fa daal di bàyyi rek ay trace loo xam si daal moom moo ko fay def situation politique bi nga xam daal moom bu jaxasoo la foofu ca Barcelone it nee daal taxoon na xëy na ñu dàqoon classico bi waaye yaakaar na ne daal jàmm mën naa dellu si ba tey ji match bi ñu daal di koy mën a amal ci jàmm Lionel Messi nag ñëw na ci xarañteem ba daal di mën a tegale six ballon d'or mu ne ndam ko jàppale daal mooy koo xam si daal ma euh, Maguette Sarr moom daal di ñëw ci kàddu yi kooku di Antoine Griezmann Antoine Griezmann nag moom ma ngay xam ne ni daal ak ñëwam foofu ca Barcelone daal gis na fa boppam bu baax a baax a baax te classico bi nga xam daal moom lay waajal mu ne classico la boo xam daal bu nar a waaye nag mu nekk première classico classico nekkoon loo xam daal lu mu daan bàyyi xel ba tey ji daal mu daal di nar a football boobule classico mu ne lu rëy ci moom la ak ñëwam foofu ca Barcelone nag mu ne bàyyam daal kontaan na ci bu baax a baax moo tax daal mu daal di bëgg a def rek histoire foofu ca club Barcelone bi moom Antoine Griezmann daal di xamle loolu ñi daal wax ci journal boobu di Sky Sport News moom mu nga ñëw ci ki nga xam daal moo di eh, Takumi Minamino moom nag eh, mu ngi nekkoon fële ca Salzburg équipe bi nga xam daal moo di Liverpool moo ko doon waxaale bëgg koo jënd journal bi di Sky Sport moom ma nga ñuy xamal ne daal tey jii ci mercredi ji lay defi ay visite médicale fële ca Liverpool ndaxte kat accord am na diggante Liverpool ak kooku di Salzburg moom doomu japonais boobu daal dina jóge Salzburg ci mois de Isa anonymity Nafra Arimadrin Andafat Vilayuat Kurtuat Ikaye Cesar Ramos Rafael Baran Dani Carvajal Nacho Casemiro Tony Cross, Valverde, Isco, Isco, Benzema, quem can lançar? Gareth Madrid, Madrid, Ala Madrid, in nada mais, e nada mais, 3-0 por mim, inshallah, 3-0. pour Real Madrid. Real Madrid 3, FC Barcelone 0. He saw another waiting far Real Madrid. On the far Vilayuaj, Courtois, Chicaye, Sergio Ramos, Raphael Varane, Dani Carvajal, nacho case mira Tony Cross de Valverde Isco Isco Benzema Can can Gareth Bale Madrid Madrid Ala Madrid inna Damas 3-0 pour nous incha allah 3-0 pour Real Madrid Real Madrid 3 FC Barcelone 0. ñi daal di dem fële ca France ak journal bi di l'équipe moom ma nga ñëw ci équipe bi di olympique li mi nga xam daal mercato bi jëm mu ne ma ngi koy waajal bu baax a baax ci mois de janvier bi pour renforcer ci équipe bi ndaxte kat moom ay blessure la am yoo xam ne si daal ay joueurs yu mucc ayib la yoon yu nekkoon ci équipe boobu ku mel ne rek Memphis Depay dafa blessé waaye Jeff Jeffrey Abelet moom it dafa daal di blessé ñaari jouram yooyu blessé moo tax daal ñu ne daal noppi na pour daal di def euh, mercato bu am solo ñaari joueurs yi daal teg na leen bët pour jënd leen ci mois de janvier bi moom Lyon moo di Thomas Lemar doomu français bi nekk fële ci Atlético de Madrid te jóge woon foofu ca Monaco mu ne nag moom la Lyon daal di bëgg a jënd waaye nag naru caa yem kii di Kevin Gabeiro di doomu français nekk fële nga xam daal moo di Valence moom it daal bëgg na koo daal di recruter ñi ne ñaari joueurs yooyu de ki nga xam si moom moo di Lyon moom la daal di bëgg a teg ci mois de janvier bi pour daal di leen recruter loolu journal boobu di l'équipe moom daal dina koy xëy fële ci Italie moom journal bi di la Gazzetta dello Sport moom daal dina ñëw ci Inter de Milan mi daal ay renfort la daal di def euh, ci mois de janvier bi ñu jëm ñu ne nag lu tolloo ko cinquante millions nar na ko daal dépassé ci mois de janvier bi la mu bëgg a def rek moo daal di jënd kooku di Marcos Alonso doomu espagnol bi nekk fële ci Chelsea ñu ne ki nga xam moom moo di Inter de Milan bëgg na ko daal jënd ak ki nga xam moo di Kulusevski bu euh, nekk fële ci Parma euh, mu nekk ci Atalanta Bergame ñu ne moom mi daal ñi interdo Milan daal di bëgg a jënd ñu ne nag waaye ki nga daal moom mooy président interdo moom ka teg bët moo di Arturo Vidal di joueur Chilien bi nekk fële ca Barcelone ñu ne daal moom mooy objectif moom bëgg na ko daal di recruter wàlle eh, ci mercato bi jëm ñu ne loolu lépp daal jamono ji mébét la moo xam daal interdo daal di ne na koy am rek ci mois de janvier bi mu daal di ciy def rek eh, recrute yu am solo loolu journal boobu di La Gazzetta dello Sport moom moo ko daal di xëy fësal ya di wax ci journal boobu di day mail ma ñu xamal ne Carlo Ancelotti nañu ma nga di wutali ci Everton pour daal remplacer seen entraîneur bi nga di Dogan Ferguson ñi ne Carlo Ancelotti nag noppi na pour di angla engagé équipe bu Naples boobu ñeenti at ak genn wàll daal lañ ko di nar signal moom moom di Carlo Ancelotti journal bi nga xam di day mail ma nga ne Carlo de salaire bu ko di fay ci 9,5 millions d'euros Carlos Ancelotti ay atam nag tollu ci soixante temps mu ne nag moom Carlos Ancelotti de euh, contrat boobu nag moom des na ko daal di officialiser rek euh, ginnaaw rek euh, match bi nga xam daal Everton war na ko daal di am ci mercredi ji ci League Cup ci seen diggante ak Leicester City loolu journal boobu di daay mel moom daal nañu koy xamal ñu wax ci journal bii di daayim Sport moom laa dina ñëw ci ki moom moo di Mikel Arteta mi nga daal ginnaaw ay waxtaan ñu seqoon ak Arsenal boobu jege nañu lool juboo moom technicien espagnol boobu am nekk adjoint Guardiola fële ca Manchester City nangu na léegi daal di dem remplacer kooku nga daal moo di Luzenberg nekkoon entraîneur adjoint foofa ca Arsenal toppoon ci ginnaaw kooku di Emery ginnaaw buñ fa jëlee Emery nag moom moo yoroon équipe bu Arsenal boobu waaye nag ñu ne daal daal moo di Mikel Arteta ñu ne nag euh, moom doomu espagnol boobu nag euh, contrat ans et demi la ko Arsenal daal di nar a signé loolu nag euh, journal boobu di Daily moom moo ko daal di xëy xamal ñi wax ci journal bii di Daim Sport moom daal dina ñëw ci ki nga daal moom moo di Mikel Arteta mi nga daal ginnaaw ay waxtaan ak mu seqoon Arsenal boobu jege nañu lool juboo moom technicien espagnol boobu am nekk adjoint Guardiola fële ca Manchester City nangu na léegi daal di dem remplacer kooku nga daal moo di Luzenberg nekkoon entraîneur adjoint foofa ca Arsenal toppoon ci ginnaaw kooku di Emery ginnaaw buñ fa jëlee Emery nag moom moo la ñu bëgg daal moo di Mikel Arteta ñi ne nag euh, moom doomu espagnol boobu nag euh, contrat ans et demi la ko Arsenal daal di nar a signé loolu nag euh, journal boobu di Dailymail moom moo ñu ko daal di xëy xamal